beneen bi mooy ñëpp gis nañ da ngay yëngu ci social gis nañ la fan yi passé yow sa relation ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ndongo daara yi ñu gis ni da jël xaalis bu takku def ko ñoom ñu gis masque yeeg ak social yooyu noonu ñu ne Gris jël na lu ëpp 2 millions euh, frais ko si ñoom loolu mën nga siy ñëwaat. waaw loolu taalibe yi la rek ba mas bi ñëwee moom Patrice Hébert mooy association Grand Cœur la. man la moom moom hôtel arc ak jabaram. Mm. ñu am organisation bu ñu def daan ko def ci ay affaire taalibe ba mbas bi amee nag mu ne ban solution la ñu war a def ma ne ko nañu xool taalibe daara yi lu mat cinq daara ñu accompagner leen affaire yooyu noonu affaire yooyu ci lañ nag def loolu ñu toog calculer ne kon nañ def lii comme que affaire bi dañ ne un mois la xaw ma quarante jours daara yi kon nañ leen wutal lii wutal leen lii taxaw bu loolu passé ñu prolonger ko ba korité bi ak affaire yooyu rek parce que ñun li ñuy jublu ci lancer ko mooy benn affaire rek pour nit ku nekk bàyyi ci xel bàyyi xel taalibe yi parce que ba feebar bi ñëwee ñëpp seen xel ci taalibe yi lañ nekk parce que taalibe xamul raxasu xamul moytu xamul masque xamul dara waaw moo tax te tamit engagement yi ci nit ñi def moo tax taalibe yi donte affaire bi laal na leen li nit ñi doon xalaatee demeewul noonu. ay tuuti la ci laal ñu gis si nag monsieur le maire Talla Sylla maire Thiès man moom depuis ba affaire bi passé fu ma gis sotoom wala fu ma gis kiiwam dama ko ciy ñaanal waaw parce que engagement bi mu ci jël amul kenn ku ko jël ci réew mi depuis boobu ba léegi mi ngi teg ay man a Thiès di jox daara yépp ñuy lekk te loolu rek la ñuy xaar ci ñoom parce que alxuraan moo téye àdduna bi taalibe yi ñoo téye àdduna bi bis buñ leen supprimer ci réew mi réew mi tàkk réew mi yàqu dañuy wax naan mag ñee fi ñaan ak yooyu noonu mag ñi ñaan nañ de mag ñaan nañ de parce que dëkk am na ay dëkk yoo xamante ne ay nit yàlla ñoo fa dëkk ay yonente ñoo fa nekk te ay mbir dafay am. màkkatal mukarama ban année ci aj juru aj nga xamante ne feet la ci jullit ay lengee wadd fa ay milliers de personnes dee fa <laughs> kon yàlla mën na seetaan lu ne mais xale yàlla du rejeter ay mbiram. xale bu yeewu di jàng alxuraan yàlla du mënu koo réciter kooku du sax ñaan yàlla day bëgg te heure yi ñuy yeewu heure yooyu la yàlla di wàcc ba dernière asamaan di laajte loo leen bëgg gis ay xale yu ndaw yu yeewu six heures du matin toog di jàng alxuraan di yëngu loolu moo téye Sénégal bu la ci dara bu ci kenn nax moo tax des fois ay supprimer daaraak moderniser daaraak avec yooyu bis bu ñu toogee fii bës set fajar jot benn xale yeewul jàng alxuraan. sunu réew yàqu parce que mbon ngi fi nekk alxuraan moo koy rejeté alxuraan moo koy contré mais bu du woon loolu barke alxuraan suñu dëkk li ngay dégg ci dëkk yëpp di nga ko fi dégg waaw dëkk bu metti lay doon dëkk bu bu torox lay doon bu du woon alxuraan bu du woon taalibe yi. Euh, wax nga ci léegi wax nga ko léegi euh, Modou. Mhm. ñu gis ne instant bi euh, mën nañoo wax ne fii jamono toll. Mhm. dafa xaw metti ndax gis nañu mbas bi ñëw na gis nañu tëj tëj jàkk amoon am na fi ñu gis ni bërki dee boo jaay gars yi ñu ngi ñaan ñu jékkati te gis ay mineur yoo xam te ni fii si technique saa di fa xew yëpp ñu gis daal dafa mel ni léegi ngoon gi gars yi doon wax pour euh, dafa xawoon wàññeeku gis nañu tamit mu ñëwaat instant bi nag nga gisee réew mi nii fu mu toll fu mu toll nii euh, en tant que jeune ak tamit nan nga ko gisee nii ni instant bi li li li kiiwaat du duggaat ci réew bi nii waaw lii mosu fee génn xam nga nit organisation la xam nga kon li ñuy wax rek nit du jikkaani xam nga après su pamee di fa sax waaw parce que réew mi boo seetee influence yi moo fi bari parce que bu ay booy defee dara nit mënul def loo xamante ne jàngu ko loolu c'est impossible nit lu mu def ci àdduna rek danga ko gis te léegi jamono internet lañ nekk sunu réew yu bëri luñ fi saxal loo xamante ne ndeysaan damay gis Jamra Mame Matar doon def ay affaire ay intervenir réew mi yëpp war koo topp jàppale ko Sénégal de A à Z buñ doon nit Jamra dañ koy dañ koy cotiser pour dooleel leen te wallaay Jamra ku fa def sa dërëm ci sa kër nga ko def ci sa doom nga ko defal ndax Jamra li ñuy xeex noonu yow mi toog sa kër jàpp ne sa yoon nekku si sax yow ñu ngi lay dimbali mais dañ leen doon ay mouvement yoo xamante ne dañ leen sàggane fexe nañu ba ne doomu kooku doomu <laughs> Mame Matar Gueye dafa demoon auberge kërëb kërëb pour ñu mën a tëj gémmiñoom parce que noonu la def képp ku fi signalé lu baax lu bon dinañ fexe ba dugal la ci ruq génnee sa image wala wax la dara pour nga mën a tëj sa gémmiñ pour lu bon li mën a continuer noonu la ñuy doxee te léegi nag loolu nag mooy yegsi ba si biir kër yi tey jii lu bon loolu noonu buy dem di dem di dem loolu mooy ku nekk di nga jël sa wàll toogal rek de xool xale yooyu naan dañoo bon rek de mais sa doom bi nga yor ci kër gi yow bul xam lu muy def loolu mooy danger bi mooy xale yooyu tey seen ay image ñoo feeñ mais barki alxuraan ñun ñii tey toog boo moytuwul sunu kër. xale ya fa nekk ñi ngay toj la xale yooyu def réveil musculaire la ci ñoom loolu nag mooy danger bi mooy tey boo ko gisee da ngay xam ne mil la image boobu kese moo ci feeñ mais mil yu mel noonu mi ngi am chaque jour ci réew bi fii chaque jour nag léegi loolu nag danger bi lan moo koy dindi parce que du xale yooyu lañ war a clash parce xale yooyu dañoo feeñ. mais ay mille yu mel noonu mooy am ci réew mi chaque jour léegi nag waratuñu xool waratuñu xeex pour mu dañ fi dañuy xool fan la jóge pour ñu fatt turu boobu turu boobu moom la Jamra di xeex ñu def Jamra Jamra ennemi international ku wax ñu ne la dangaa soof wutal la ay pexe parce que man bu Jamra bi dafa maa metti damay toog di suivre man xaw ma sax paa boobu xamoon naa Latif Gueye mi ko doon xeex nga xamante ne dafa amoon protège bu mat protège muy maam Abdou Aziz Sy baax Latif Gueye woo nañ ko fii tribunal dakaar maam Abdou ne mooy wuyu ji war a jóge Tivaouane pour wuy ji appel ba wuyu ji ne man maa koy wuyu jil ba ñu annulé loolu maam Abdou Aziz baax ba mu fi demee tax na ñu dugal ko kaso Latif Gueye tey maam Matar Gueye moo fi nekkoon di coow fexe nañ ko ba wutal ko léegi instant bu waxee xamul lu ñu koy wax waaye may ñu jàmm sa doom demoon na auberge pour bëgg mu noppi léegi bu dee kuy xeex lu bon rek dañ lay wutal lu tëj sa gémmiñ après nag ba léegi amatul kenn kuy xeex lu bon mais léegi image yi nii ay réveil musculaire la rek de image yi nii ñu gis ci xale yi ndax gis nañ ne sax des naa garaaw tuuti mais yeneen a ngi ñëw yeneen mi ngi ñëw suñu esprit ñun ñëpp moo yàqu parce que tey muy man tey man mii bu ma doon def ni internet di puus gis Fatima Dia Fatima Dia nangam dafa tabax mosquée damay puus xam nga Fatima Dia dafa am borom kër damay puus mais bu ma gisee nii benn image rek ñu ne Fatima Dia nuyu la def dañ ko photo mu def yaramu neen rek ma cliqué looloo ma intéressé ñun ñëpp léegi noonu lañ mel lu bon la ñuy seetaan lu bon la ñuy suivre lu baax dañ koy off ñun sunu réew léegi loolu moo fi am te loolu installation la bu ñu def ci ñun léegi nag installation boobu fi mu jógee foofu la ñuy war a fàtt jamra la ñu war a dooleel jamra jamra mooy kii boo xamante ne OMG boo xamante ne état da ko war a def public jàppale ko parce ay police lu lu yàq lu yàq liy indi dugg kaso moo ëpp solo defar ay police parce que policiers yi sax bëgguñu di tëj buñ sañoon du ñu am ay client buñ sañoon duñ jàpp kenn mais liy tax nit ñëw fa boo amee lu ko fatt moo gën te Jamra loolu la fi nekkee di ñu dimbali ñun nit ñi ñu ñu jàppee ko noonu jàppaleen nit la kuy kuy parce que Jamra li muy xeex gis nañ ko mooy dañuy siñaale lu sori xam ne day dugg ci biir askan bi te bu fi duggee sayee loolu lay jéem a freiné ñun ñëpp nag comprendre ñu loolu te loolu nag catastrophe la fi indi te man benn Jamra laa gis buy taxawaay taxawaayu di xeex loolu waaye nag loolu bu fexee moom ba jeexal ko moom mooy musiba dal nañu moo tax li xale yi def barki alxuraan garaawul parce que li li li nëbb moo gën a garaaw li ñu gisul moo gën a garaaw loolu chaque jour lay am moom ñu xale yi def noonu loolu chaque jour la xale yi dafa dox rek mu rëcc mais chaque jour loolu mi ngi am ci dëkk bi mais li ko indi la ñu war a xool influence yi la ñu war a xool dooleel ñi nga xamante ne ñoo ko mën a xeex ñu dimbali leen sinon ñëpp dinañ jël seen wàll kër yëpp Sénégal bu desee tuuti rythme bi buñ ko continuer dinañ dem ba kër yëpp amul benn kër. boo xamante ni doo am scandale. les parents yi amuñu ci part de responsabilité. waaye yow ma fii léegi ñun lu ñu mënal man tey <laughs> ma fekk fenn may toog tey jii ci lu may nekk tey sama yaay lu mu ci mën lu mu ci mën. yow mi yaa ngi nii tey ne danga ñëw fii micro da nga ñëw pour jël si ma interview boo jàddoon faneen sa waajur lu mu ci mën sa yaay lu mu ci mën ndax mi ngi jàpp ne yaa ngi ci légal. nit ku génn këram rek wax na ay raison waajuram lu tax mu génn mais est-ce que la mu tàggoo loolu la dem defi waajur yi defuñu dara influence bi état moo war a jàppale Jamra mu xeex lu bon li muy xeex benn solution boobu laa fi gis waaw à part amaatul beneen solution. beneen luy yàqante comme bi yàqante. comme euh, xaqarloo bi xam nga xas kii kii fii nu yàq deram. waaw parce que loolu parce que loolu. xam nga waxante yu loolu yëpp loolu yëpp looloo ko indi. li ma lay wax nii nii mooy tënku lii nii mooy jur jur bii mooy dem mooy day dem ba ci yàgg kersa dootul amati parce que léegi yow mii bu la neexoon tey tey jii nii xam nga des ngaa siiw. Mm-hmm. bu la neexoon suba. Sénégal yëpp xam la waaw boo jëloon sa micro rek toog saaga ndey Sénégal yëpp lay xam boo ñëwee wane say yaram Sénégal yëpp lay xam foofu foofu la réew mi toll sant bi mooy lu bon lañuy ñuy lu baax ñu ignorer ko moo tax léegi ku si nekk léegi boo bëggee am tur nan ngay def mhm. dangay ngay def yu fu doof wax wax yu ëpp wala nga wax waxu sexe affaire yooyu noonu après loolu jug parce que boo gisee ba ci wàllum diine méthode bi am méthode méthode bi am ci wax ci wax ci réew mi dangay xam ne da ngay xam ne yaa ko chose quoi am na da mel ni Sénégal man ni ma ko gisee dañ ñoo wër waaw ñun Sénégal instant yi nii mafia bi daf ñoo wër dafa am mafia bu ñu wër pour changer ñu désinstaller jeunes yi am lu ñu installé te presque installé bi tuuti moo ci des tuuti loolu moom bu ñu daggul fil bi bu ñu xasee installé moom jeex na waaw parce que suñu demi ñun ñëpp genn wàll gi yàqu na tuuti moo ci des waaw te loolu li koy indi mooy loo daanu loo gis boo koy gis ba mu miin ba mu miin say bët rek après loolu rek mooy nekk sa soxla te loolu la ñu gars yi di jéem a joué waaw moo tax ku ñu gis ngay xeex loolu tey nga dee xamal na force di nga daanu waaw instant mafia bon bi nii ku ci bokkul nii da ngay fay waa parce que ku koy xeex dañ lay toroxal par su mënoo ci dara dañuy dal sa kaw ci côté yëpp fexe laa jàq parce que xoolal Jamra ba problème bi amee problème bu nekk am nga ci est gis nga policier walla ku am ay garaat ku génn wax ci doomu Matar Gueye bi ba mu amee ay borom garaat ñu njëkk génn expliqué ne voilà ci auberge la demoon kurung kurung te pourtant ñu parole scandale boo nekk am nga fi gisul benn autorité bu génn ci ngay xam ne kon affaire yi du lu ndaw Sénégal li ko song nii ci mbon ak pour ay image pour détourner jeunesse bi wala dara loolu du affaire bu tuuti ku ko jàppee bu tuuti wala ay parents yi ci kër yi nii di tooñ maire yi ak paa yooyu ku leen di tooñ rek xamoo waaw affaire ba ca kaw a kaw a kaw la jóge

nit mën na maa weddi mais jamono du ma weddi Serigne Cheikh nee na jamono moom du ko weddi mooy li muy wax chaque instant jamonoom day ñëw force te loolu Sénégal yëpp teg nañ seen bët loolu moo am. boo déggee ci vidéo seen Cheikh yi am na fenn fu mu ne dafa amoon nit ku ñëwoon jox ko alal ju bari proposé ko alal bu bari ne ko damaa bëgg pour tarixa yi xeex mu ne ko dinaa ci xalaat kooku jóge fa dem seetiwaat sëñ Abdoulaat wax ko loolu. ne ko damaa bëgg def financement bu bëri pour tarixa yi nekk Sénégal xeex te ñooñu ay milliardaires lañu sëñ Cheikh ne ba mu waxee loolu ba pare te nee na ñooñu duñu mës a bàyyi parce que ay noonu mag ñi lañu jamono bii boo xoolee man xam nga daal malet yooyu noonu ñoom sëñ Cheikh rejeté woon duggaat na nii ñëwaat na ba am ba ba gars yi encaissé parce que boo xoolee réew mi. débat yi ñàkk xorom yu ñuy jàpp di ko ngandeel audio yi daw nit ñi ni ñu mel nee ni ku ñu xattal stratégie bi niñ koy pexelee nga xam ne am na ñuy jouer pour réaliser loolu moo tax loolu foog ñu tenir ci compte xam ne mag ñi benn benn bopp lañu woon ñoom ñëpp jë seen jëwrin mooy rasulullah sallallahu alayhi wa mm-hmm. mais niñ koy doxalee nii yàlla xam na ne am na ay financement yu fi nekk pour jouer li Serigne Cheikh ne woon ñooñ ñooñu ñëwoon yor ay milliards te ñooñu seen ay sëtën fii ba léegi jouer boobu ñu ngi koy def di ko jaarale ci ay nit pour mu am ndax am na jouer yoo xamante ne boo koy gis da nga xam ne lii jeu la du ay affaire de diine rek wala dara parce que réew mi xamuñu loolu réew mi fii jàmm rek la xam ak salaam parce que Sénégal nag moo wax la politique mënu koo yëngal keneen mënu koo yëngal. sa Sénégal lu politicien wax duñ ko gëm. ni gëm feebar dafay ñëw ñoom ñu génn ne feebar am na ñu ne la feebar amul parce que ñoom dañ ñoo tàmm nax. 1960 ba léegi dañuy dañuy teg dil moo tax dem nañu ba kuñ ne da ngay dee sax ñu ne la doo dee parce que gëmatuñ leen mais kilifa yi lañ gëm. kilifa yi lañ gëm te boo gisee stratégie yi ni muy doxee ak ni gars yi di doxee Sénégal pour déstabiliser ko diine ji rek nga mën a laal. diine ji rek nga mën a jaxase dëkk bi jaxasoo mais leneen lu dul loolu mënul jaxase dëkk bi moo tax nag ñu ngi ñaan yàlla seytaane yooyu ak nit ñooñu bëgg jaxase sunu réew jaaree ko si sunu mag ñi yàlla na leen xamante ne rek sa loxo mu ngi bokk ci mafia boobu pour bëgg tasaare sunu réew jaaree ko si sunu kilifa yi nga xamante ne amuñu ñu dul ñoom ñooy sunu or ñooy sunu pétrole ñooy sunu jàmm nga bëgg fexe ba jaxase am ci ñu ngi ñaan yàlla yàlla toroxal la jëlee la ci àdduna bi man moom lu ma lay ñaanal mooy nga faatu nga xamante ne ku faatu dootoo dootoo mënati ñëw di jaxase mm-hmm. waaw képp koo xamante ne daal yaa ngi ci tànk yooyu pour sunu kilifa diine yi nga gënale leen mm-hmm. wala yamale leen wala concurrence leen wala bëgg ci jaxase nga xamante ne ay financement la yu ne ci àdduna bañ sunu mag ñi yàgg na di ay noonu yonente bi sallallahu alayhi joué yooyu ñuy joué di ko jaarale ci ay nitu diine di ko jaarale ci ay nitu Sénégal ñu koy joué képp ku bokk ci loolu rek maa ngi leen ñaan yàlla yàlla jëlee la fi pour liggéeyu mag ñi continuer